jërëjëf mbokk yi yéen ñuy suivre seen site internet Gaston Production mbokk yi nag tey sama papa moo woote Jax Production teg mi 5 millions fii ci arène nationale bu Pikine ñetti catégorie la am yaakaar naa ne poids léger la ak raw gàddu ak poids mu nekk làmb joo xamante bi ni am na solo trop li simple la nag mbokk yi fii la mbër yi di jànge bëri mbokk yi bëri na mbër yoo xamante bi ni dañuy ñëw ci arène bi dañuy të boo leen wëree ndombo doo leen daan boo jàppee seen tànk doo leen daan loo leen di def doo leen daan fii lañ ko jànge muy lutte simple yaakaar naa ne lii mooy nawetaanu mbër ba tax na tey ñëw nañ gis nañ fi nag ñi ngi ñëw ndànk ndànk mais am nañu des ki nga xam mooy Libidor bu mi ngi fi Njaga Doole bu Njaga Saar mi ngi fi Njaga Doole bu Géejawaay bokk mi ngi fi ki nga xam mooy Caaka Fay ñëw na Duudu Saane gis naa ko fi gis naa fi Mbin Jool gis naa fi ndaanaan yu bëree bëri champion yu ndaw yi tamit muy poids légers yi gis naa leen fi yaakaar naa ne ci kanam tuuti dinañ leen won lu fi am quart de finale demi finale finale dinañ leen ko toppal ak ambiance bi nga xamante bi ni mi ngi ci biir arène nationale bu Pikine bi teg leen seen baaraam foofu ma dem te ñëw Babacar borom marché Petersen maa ngi lay siyaare sama xarit bi Aliou borom Ramdan maa ngi fi ci arène nationale bu Pikine tey lutte simple moo fi am ak Jack production le roi de lutte simple xalil topp ma ñu dugg ci biir ñu xool gaay jaajëf ayca kooku mooy caaka fay ndaanaan bi mi ngi noonu di yeggaayu dem di ñëw waa Thiaka ci loo ne. maa ngi lay nuyu maa ngi si jàmm. namm nan la. ça va alhamdulilah. tey noo gisee 5 millions yi. waa compétition la rek neex na macha allah amateurs yi ñëw nañu mbër yi ñëw nañu waaw. amateurs yi nee nañ Thiaka mooy lutteur bi gën a yaru lutteur bi gën a discipline lan moo ko may. waa parce que boo waxee Thiaka nga ne international. kon nag boo ñëwee da ngaa war a wane bon exemple quoi waaw. mais diis na du diis man li ñaan mu doon suma arsek rek waaw. jaajëf bonne chance merci caaka ndeysaan du doo noonu du noonu ma ngay jaayu nee na après ngay jaayu cey Doudou Sané mbëru tay si noonu. mbokkam yaayu Eumeu Sène baa ngi noonu ma nga noonu di jaayu xale ñu ñëw ci poids léger yu xool leen kaay ma jël Libidor. non mais Morane maa ngi lay bëgg a ziar. bu baax maa ngi si jàmm bu baax. noo gisee 5 sant yàlla rek avant tout. wala wax dara sunu papa sunu xarit suñ ñëpp ku ne jaar ku ne tëgal na la lambu. sëñ Modou Niang combat ma njëkk a bëre moom moo ko kon tey maanaam bu dëddoo bu faatoo li ñu xam si moom as néew ñu koy ñaanal mébét bu mébétoon si si ndaw ñi rek ak bu mébétoon si Sénégal rek yàlla na ko yàlla fay si biir bàmmeeram tey maanaam xam rek yaram du mën a sawar quoi man ma soyoon dara du am ak Bamba. mais mën na na ñàkk ndax maanaam symbole la ko waa si biir làmb yaa nan xam ni maanaam am na kilifa yoo mu fi maanaam waa dara bis boobu xool na ñu aj lépp nga bis kenn mënu kaa jeexal waaw bilaay yàlla ko yàlla xaar àjjana quoi ah. bilaay allah xol tooy na ànd ak Fadam mi ngi doog a ñëw man de boo amul combat boo amul combat da ngay ñëw compétir man daal lii laa gëm waaw ku xuloo yow tooñ la maa lay naa la Assane moo doon àndandoo mu dëkk bi sant yàlla julli si man de yow laa gëm comme toog nga ci arène bi def say preuve kenn mënu laa jël. nga ñëw dàq sa wërsëg. waaw mais valeur yooyu mi toll instant kenn xaareetul de fi mu toll nii ku ne si kàmb gi ne yaa si mën a génne sa bi dégguloo ma de dëkk bi ni rek da ngay xool da ngay xool dëkk bi ni muy doxee nga ànd ak moom instant yi kenn toogu fi di jox kenn nii wala naa doomu aadama foo bëgg a yegg yaa fa yeggal sa bopp du nit moo la fa yeggal du keneen ambition boobu lañ am rek du leneen nag dañu entraîné ba pare toog di xaar combat combat ñëwul ñu ñëw ñaaxante ko fii ak suñuy di ñaan yàlla suñu borom suturaal ñu nag amul leneen. loo gis ci bi ba tey wàcc chaque jour. non lutte simple moom dara compétir la aw compétition la mais am na ay réalité nag mais boo ko dundul doo ko xam. Ah, waaw yaa beaucoup de réalité nag am na am na si biir mais ñun moom yaa ma gën a xam ay Baay Faal lañ dara safuñu. ay ay non yu arène lan man waaye may sama gars yi loolu la ñuy for jox ma ma maay dofu làmb ji man loo for jox ma takk man dara dawul sama yaram. man sama gàllaaj yëpp gars yi dañ koy for aw ma jot ut gàllaaj aw ma jot boobu 24 heures sur 24 damay xëy liggéeyi man damay fonctionner rek xam nga ma la wax maa ngi garage maa ngi si mécanicien bi maa ngi si ventilo yi maa ngi si fourneau yi yàqu yi lépp si laay liggéey bàyyi ma dara conteneur boo ma ko joxee ma wàcce ko bañu ma dara maa ngi si liggéey aw ma jot ut gàllaaj sama gars yi lu ñu ma yéene jox ma takk dem lamb ji leneen nawu fi fi ay dëmmu nekk ñu ay nooxóor ay nit njaay ñëw fi bëre ba mes doole taxaw yeneen ñëpp ay deuxième la fa la réew mi tey doole est-ce doole entraînement. dégguloo ma de entraîné naa daal ba am doole ñëw naa taxaw pour compétir loo xam ne dama koy xalaat ci làmb mo xalaat ma fi benn mbër nag amul kenn koo xamante ne damay taxaw di xalaat lii wala ma lay bàyyi xel amul. ngi fi Doudou Sané Demba Sané Kay Sané ñëpp ñëpp laa si yemoon sama yoon ñëw amul. billaay su ma xalaatoon benn mbër du ma taq yëfu góor la nag ay góor a fi nekk ah. li la mu doon laaj jaax laa sa li nga ràngoo nii billahi sama gars yi fu ñu foree sagar jox ma am am waaw kurus gi waaw waaw waaw non man taalibe Cheikh na laa man foo ma kurus mooy man ñun kurus moom dañu ko mooñaale ñun suñ lépp dañuy wirdu bu dara xewul ñun boo ñu rek ñun moom yaa ma gën a xam non non non gars yi fii damaa mën a wirdu kenn ba xool ko mu daanu loolu amul fenn fii mënu maa wirdu nit ba ne mu daanu lamb ji doole la rek léegi ñëpp de détail la waaw jeex na dañuy ñëw rek yàlla nañu yàlla suturaal billaay wallaay. jaajëf. Koña. Koña ci loo am jàmm. yaa si jàmm. maa ngi jàmm baax waaw. lan moo tax nga wàcc waaye so sax ma ne la lan moo tax yàgg ngaa wàcc noo ñëwee tey laa lay laaj. waaw tey ñoo ak ndam rek incha allah. fa la ne koo jël xam nga yóbbu Colobane ak Bawol incha allah. Uh-huh. waaw dañuy ñëw compétition rek. kom uh-huh. lamba suñu bi comme amaguñ combat dañu rek incha allah. ñu uh-huh. ñaan yàlla nag ñu gagné ko waaw. yàgg nga fee wane sa bopp tey ñëwaat nga ñan nga bokkal uh, kii bi. tournoi waaw. gars yi ñu may jot a xam waaw mbiram daa ay seen yu bari. nga ay ñagasang fi. ay malam ñaaneng fi. waaw ay di boyaarang fi lam ju neex daal tey. day bëre tey ba naaw ñoo miin ñoo ngi fi ñoo bokk leen équipe waaw bari na fi bari na fi gañ am na ñu ma bokkal équipe nationale am na ñu ma bëri am na ñu ma dajal ci tamit. bonne chance kon. waaw bonne waaw. ndeysaan xalil kaay ñaari doomi Casamance Boy Casa ak Ama Badiana maa ngi siyaar waaw du ñu ñun ñaar da ngeen duróo lu ngeen non kii sama frère la quoi sama frère la c'est mon frère waaw waaw waaw ay ban catégorie nga bokk euh, poids léger la bokk quoi poids léger waaw euh, naa premier tour daan monument janda quoi moom laa daan premier tour noo gisee noo gisee catégorie bi nga bokk bon ça va ça va c'est gérable quoi waaw liggéey nañu lu ñu war donc am nañu confiance bëgg nañu dem dañu ñëw pour am ndam ko pour jël ko waaw bu soobee yàlla. bi lu gars yi wax. bon waxaguñu dara mais ñu ngi waxtaan ak suñu manager yi quoi am nañu yaakaar boo xam ne très prochainement dinañ leen wax waaw waaw dina leer. mooy si laa ne yow. man maa ngi si jàmm bu baax a baax. félicitations ci victoire bi. merci beaucoup merci. Ah, ah. waaw. tey da ngaa gunge sa xarit. waa ma ñëw ma ne ko combat bu nekk rek na assuré bu assuré loolu mooy importance bi bu mu xool kii mooy favori kii mooy favori na rek. dèjà ku mu ñëw ba ku mu daj ku mu daan léegi nii champion la monument Ndianda kooku ñëpp dëgg nañu ko donc ñu ngi ñaan yàlla voilà yeneen yi gën a yomb rek waaw léegi nag voilà maa ngi xaar tamit si lutte comme lutte kii avec frappe bi waaw su ma demee ba quatre def quatre cinq combat kay cinq victoire kay war naa mën a am grand combat ñoom Koña de samay victoire samay kii lañ mu ngi jóge si ay défaite foofu fëgala bu ngor bu ak euh, am benn combat bu mu doon bëree Iba Mar jour combat ba la lour ak euh, kii Concorde man maa bëri après ma jox ko man maa daan ma après ma jox ko après moom bëriwaat na mu daanu man bëriwaat na ñaar ma daan ma ñëw fii ma bëreet ko combat spécial mu grand combat ma bëri combat spécial donc man ak moom combat bi jot na. pare bu baax a baax comme moom bu ñëwlee am na benn mbër mbër tamit bu ne fii kii euh, Mbaye Tine junior bu Guédiawaye. Ah. kooku sama adversaire la. pare nga bu baax a baax. pare naa pour bëreet ak moom ak ñoom Liss Ndiago ñoom ñëpp samay kii samay euh, adversaire lañu waaw mbër étudiant moo fi nekk étudiant bi un seul contre tous dinaa leen ñoom ñëpp bo baax a baax. macha lan moo tax bëreesiwul. ci loo ne. maa ngi rek maa si jàmm bu ko jëg naa ko naaj kay. naka tey. ngi nii rek. tey lu xew. tey booy bi nga bàyyi mu ñëw duudu. Ah. waaw. Sané waaw waaw ñoo bokk dëkk waaw. mënatu leen a bokk géewub waaw te et euh, dafa am combat quoi. journée ñoom rëg-rëg bi moom mooy bëree. Euh, spécial ñu déggante mu ne ma mbër xam man maa waroon ñëw sax mais dafa ma ne mbër doo ma jàppale rek ma mun a bëree parce que dañuy téye licence am bi quoi gën mu mun a am gu mu waajee combat am bi. ma ne ko waa dama garaaw baay ma toog. Uh-huh. mais ñëw bëre woo seetaan si yaram baa ngi commencé tàng de. waaw yaram baa ngi sax dugg si biir xam nga yow xam nga bu baax uh-huh. damay ragal dugg si biir sax mooy googu. Uh-huh. mais yaaga baax na. mais am nga lit avec frappe. waaw am naa man ngeer après koor gi. waaw. réew mi dina daanu de. incha allah ah. dina yëngu. waaw jaay Cheikh Anta. yéen yéen a bokk seen Casamance de. waaw waaw ta wax de. sant yàlla. naka tey. baax. noo gisee fi nga bokk poids lourd bi. waaw alhamdulilah. jàmm laa fa gis quoi ah. waaw. mais ñi ko bokkal ay Ndiaga Dolé ay Doudou Sané. waaw mais yàgg nañoo bokk bés. Ah. waaw bi ngeen bëri passé man bu Doudou Sané jël 3 millions demi-finale laa fa ñàkk ñàkk sens. Dakar ñàkk sens laa fi am ren nag def naa fi 3 demi-finale waaw. tey ñu ñëwaat fi 5 millions. waaw waaw rek affaire moom loolu la compétir rek chaque jour ñi ngi si daal voilà xam nga duñ toog di xaar komba ah. non non wax dëgg sa yàlla duñ ko def su combat ñëwee baax na su combat ngi bëri ñun waaw maa ngi lancé benn appel ngir yàlla mu mbër yi dañuy jël mbëru simple yi mbëru simple moo gën a jafe am combat da nga si gis comme ponkal boo xamante ne dañu mun jaay viam yëpp làmb na day toll moment yoo xamante ne du mënoo combat mu amu yàqu man suma li ma am say combat dem ba jor ko réaliser mu yàqu daa bëri bilaahi loolu moom maa ngi koy lancé yéen neexut a daan na lii ngeen jàpp waaye làmb la rek làmb la rek it kenn waaw aja ndeysaan cay lit simple dafa neex ba dugg péex gis nga leen de billet 3000 la bi gën a yomb 3000 5000 da gis nga leen dafa fees del njaga doole ngi noon takki veeram waaye kenn du njaga waay balla 3 ngi nii waaye fadam waay fadam siñoor ndeysaan Balla 3 ngi noonu waaw waaw <laughs> ey Balla 3 mi na moom tamit ndeysaan